yéen jëf ñu del jàmm ci loo ci mën di dégg mooy tey ji mooy bésu boo xamante ni ñu ngi koy joué tey ci tribunal bu bi nga xamante ni daal mu nekk nii fa lañ ko tegoon moom Bougane Gueye Dany dana jàkkaarloo ci procès bi nga xamante ni tey ji moom la amal procès boo xamante ni nag partisan yu bëri fëx nañu wutali ca Tambacounda bëti penku réew bu Sénégal tey ji lee kon mooy célébrer yoonu wëy politique yi a président groupe Walfadjri mo ma ngoon ca baraba demoon na seeti Bougane Gueye Dany nee nag tey jii ñëw nañ ci Tambacounda ngir nag wane suñu njàppandal ci Bougane Gueye Dany tey nag Walfadjri waxtu amaat jafe-jafe yu nu mel moom dañ koy teg bët waxtu suñu bët xonqoon rek dañ koy gis mu indi ndimbalam ci ñun moo tax fi mu nekk ni ñëw tey jii fii ci Tambacounda te si international bu France moom ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñi ngay sàkku dëgg-dëgg bugaan gi dañu bàyyi ko ak ñoom su du quotidien tey ji nag mooy jour de vérité dañu xam ñu waaneen di mujj gi gëtam ci Tambacounda daal bugaan gi dañu mi tey ji lañ ko fay atte njiitu la bopp dañ ko jugé ci flagrant délit tribune yéen kaay yéegalee kaay bi moom nga xamante ni tey ji lañ koy amal ci diwaanu Tambacounda tribunal bu grande instance bu nekk nii ci haute surveillance la nekk artère ak mboolem lu ko wërngal hôtel Metlaye Ba bu Tamba ñoom ñi ñoo nekk ca poul ba fu nekk daal hôtel ya jàll ki nit la def mobilisation bu takk bu gëm sa bopp ca diwaanu Tambacounda ni ki tey ji suusu année loo ci mën dégg mooy fu nekk ni daal colonne d'avocat dëgg la ñu fa nemmeek lim bu takku ci avocat yoo xamante ñu fas yéene jàppal tànk Bougane Gueye Dany ñoo dem ca diwaanu Tambacounda Walf Quotidien keneen tamit demoon na président groupe Walfadjri di bi nga xam te moom moo pour un renvoi du procès Bougane Gueye Dany ba du ca am Tamba bi nekk sous tension jàppale ne kon bu buñ moytul machination mën na am ci renvoi procès bu Bougane Gueye Dany bi bu mu leen ca bett bu amee rek bu mu leen bett les écoles yéen kaay ni nekk ni kay Tambacounda ñu ngi ci haute sécurité dëkk ca jamono ji nag askan fa nekk fi mu nekk nii di daan maayo nekk ci guddi gu bët di daan maayo nekk ci désarroi nekk ci njàqare dëkk jamono ji nga xamante ni dañoo jàpp ne seeni kër dañ ko du moyu yoon yi baaxatul kenn amul foo jar mbedd yi ak structures sanitaires yi tamit yàqu yaxet nga xamante ni daal ngi ci jafe-jafe fi nekk nii tey ji la wàllu aay le quotidien yéen kaay ni moom Macky Sall moomee sax daan nay wax ci li nga xam ne moom dëgg-dëgg moom lay fësal mu koy jaay ci yi jàppal na ca Fatick mu nekkoon sax dig ne leen ab usine de transformation xorom sa ñu mën koo soppal ñi dégg ñu ne Abdoulaye Sylla moom wax na ci Amadou Ba ak Ousmane Sonko defee ne leen amu ci kenn ku mu jox li nga xam ti moo di dayoo daan leen donc taxañ ca poubelle ba moom Ousmane Sonko moom sax yëkkati woon fi ay kàddu mille milliards l'indépendant dikkaat na ci ci compte bi nga xam dañoo jàppoon ne da transhumance bi takk wàllu bëgg ñu ñu leeral kon mille milliards ak lu jëm ci scandale am ci gaz bi ak transhumance bi takk moom di désingué Sonko bëgg indi ci ay leeral ndax fu mu nekk ni daal wax ji mi ngi bëgg ëpp waxtu yëkkatee kàddam rek ubbi gém wax tey de mën a joojee nag dafay mel ne koo xamante ni nag dafay tëkku nit ñi menace am kenn xamul fu mu toll la lool fu quotidien Abdoul Mbaye kay ma ngay tontu ci mille milliards yooyu bi ñu ne dañ ko gis ci compte particulier Abdoul Mbaye nag weddi ba mu set wecci Ousmane Sonko jàpp ne loolee du kàddu yi la du dëgg amu ci ndax jàpp ne amul benn yoon kàddu yi mensonge politicien la noonee lañ ko mën a tekkee ci wolof mooy kàcc di mensonge Le Soleil yéen kaay ne jamono jujee monté trois cent cinquante quatre milliards la ñuy wër ngir nag jàppale ñi nga xam ne ñoo di wàllum la santé a renforcer confiance ba Bassirou Diomaye Faye demoon ci réewum Arabie Saoudite nga xam te moom moo di kon buur ba moom moo ko teraloon prince héritier bi Mohammed Ben Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud moom moo ko daloon président bu conseil des ministres Arabie Saoudite kon roi bu Maroc fi mu nekk ni daal beraloon na loxo kii di Diomaye Faye ba ñu waxtaane lu jëm ci tolluwaay ñaari réew yi rataxal seen diggante ci Sénégal wala ñoo rataxal diggante yi tamit nit ñi daal fu nekk nii kenn jubootul coow guddi coow bëccëg politique guddi politique bëccëg xaaral sax ma noppi foofee te ñaan Sénégal juboo rek ndax loolee ñu ji ma naan Fatima tëjël te dem añi jën leen journal l'info yëgle kaay bi wër te